di fas ci wat ak yéen tey ci ben secret bo xamne ne lu am solo la njëriñ lu yaatu lol ji njëriñ lo xamne ne ñi ngi koy toxale ci suratul fatiha bi nga xamé ne moy umul kitab xam ngeen ne sar wo sar wo lambo ay ngeenel yu bari la te nak ñu fas yene ñoo ak yéen ci ay njëriñ yu yaatu lol insha allah taala da ci njëkk moy kep ko xamanteni bindina alhamdulillahi rabbil alamin bat bobu rek wala bat yoyu rek. ku ko bind bésu dimaas juróom-ñett fukki yoon maanaam quatre-vingts fois mu sangoo ko ci bés bi wala mu takk ko ci bés bi incha allahu taala wala mu naan ko yàlla sunu borom tabaaraka wa taala dina ko defal wërsëg wu yaatu lool dana ko yombalal mboolem lu jafe woon te dana ko def mu bokk ci woy woomal yi incha allahu taala dana ko defal tedd nga defal ko yiw bu bari képp koo xam ne bind na arrahmaanir bisu altini juroom ñen fukki yoon manam 90 fois te bu noppé mu naan ko yàlla suñu borom tabaaraku wa taala dana ko yërëm aduna ak al-akhirah kep ku bind maliki yawmi din bésu talata ginaaw bu mu jullee suba ba noppi mu bind ko téeméeri yoon incha allahu taala bu ko sulmo wala mu raxasi xar kanamam wala mu sangoo ko ci waxtu yooyu suñu borom dana ko yaatalal wërsëgam wu yaatu lool àdduna ak àllaaxira suñu borom dana ko defal wërsëg wu yaatu lool àdduna ak àllaaxira defal ko itam mu nekk koo xamante ni nit ñi danañ ko sopp lool daal macha allah. ku bind iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'iin téeméeri yoon bésu àllarba ginnaaw bu mu julee suba ba noppi mu sangoo ko wala mu takk ko wala mu naan ko yàlla dina ko defal wërsëg wu yaatu lool àdduna ak àllaaxira lépp lu mu bëgg suñu borom tabaaraka wa taala dana ko ko defal te dana ko defal barke ihdina siraatal mustaqim ku ko bind téeméeri yoon bésu alxamis mu sangoo ko wala mu naan ko wala mu takk ko suñu borom dana ko defal wërsëg bu yaatu lool insha allahu taala te dana ko defal xol bu leer waaye itam euh, dana ko defal ndimbalam suñu dana am ndimbalu suñu borom yàlla dana ko yombalal mboolem lu jafe woon daal insha allahu taala bu fekkoon koo xamante ne jinni da koo sadd buñ ko ko joxee Euh, dana dellu siwaat ak xelam fi saasa incha allah ku ko takkal wala ku ko naan te yàlla dogal nga nekk jigéen ju taxaw boo booy sàkk am doom yàlla suñu borom tabaaraka wa taala dana la may ak njaboot incha allah wa taala ku bind mm, doom ju góor ju baax ku bind siraatal lazina an'amta alayhim euh, bésu àjjuma téeméeri yoon mu takk ko yàlla dina ko defal wërsëgu yaatu lool ci këram dana ko defal njaboot gu barke incha allahu taala maanaam yàlla dina ko defal wërsëg bu yaatu lool dana ko defal ndimbal ci këram defal ko wërsëg bu yaatu lool incha allahu taala lépp lu mu bëgg suñu borom tabaaraka wa taala dana ko defal àdduna ak alaaxira te yàlla dina ko euh, saafaraan mboolem tawatu faatu yi xayril maxdubi alayhim wala daalina amin ku ko bind bésu samedi téeméeri yoon ginnaaw nga bind nga bind ko ci waxtu wi jant bi di fenk waxtu wi jant bi di fenk bésu samedi nga bind ko téeméeri yoon yàlla dina yàlla suñ borom tabaraka wa taala dina ko fegal mbooleem ay yi mbooleem mbir yu ñaaw yi suñ borom tabaraka wa taala dina ko fegal àdduna ak àllaaxira li moo nekkoon tey secret bi ñu leen indi woon mu nekk secret bu am solo loolu ñu taxalee ko ci suuratul fatiha ñu ngi leen di sant te di leen gërëm di leen ñaan ngeen aimé vidéo bi te partagé ko te di leen jox dig daje ba ëllëg ci yeneen vidéo incha allah asalaamaaleykum